leen xam ngeen ne nag Ndiaye Touba dafa génnati ngir waxati lu ko ñor tey ndax seetaan ngeen Adama Fall saaga yi mu saaga Waly Bodian Aliou moom Aliou a ngi toog ay satu Fall a ngi toog te site ay Aïssatou Diop Fall moo ko moom te Aïssatou Diop Fall sitam boobu gis nañ ne ñi dàq saaga Ousmane Sonko ñi mu àndal ñoom rek lay recevoir foofu satu jigéen juy liggéey nga di daan sa comme jigéen ñëpp. rewane gi ngay samp ci rew mi di wo nit ñi ci rewane barke cheikhul khadim jël la ci wuy sibam sa sap yak adama faan mi nga xamne bu fekkon bayam di day ba muy saw du ko wax mu taxaw di jign waari boña di wax wax ju rew ci mom adama fall rewane ngay woote gatsa gatsa ñi ngi wo patriote yépp na len adama fall bu kenn séqatee moom war kan kan ma Wally a fait pipi. <laughs> Il a fait pipi, il a ah. pleuré. Il a fait pipi sur sa culotte. Il a fait lépp lu ñaaw lépp loo xam ne doomu aadama war na koy wax doomu aadama ci lu ñaaw rek nañ ko yekk adama faal parce que dafa woote ci pénc bi gatsa gatsa beneen bi ci topp mooy mbooleem gis nañ plateau yi fan yi ñu recruter ay nit pour ñu ne dañuy gàllankoor yoonu Bassirou Diomaye Faye waaye loolu tuuti ngeen ci dangeen ci tuuti ay maam gay Gueye Jamraak ku ne taxaw di wax yéen yéen yéen ay mujjadit ngeen wala ay xaali ngeen wala lan ngeen luy jamra lan mooy jamra yéen ba la ngeen a du ngeen diglu wax lu nit mais nag sëbla la ko bën na nga ca biir kenn ku ne sa entre daa menacé wu ndax salaire yi dagg dafa bari waaw trésor lañ tëj salaire ya dagg ya dagg moo bari moo tax ñi toog di kaas bari waaye barke seexul xaddi bu dee wax ju ñaaw billahi alazim daaxuleen ñu ko te den ko jëflante yéen moom saf sap ak kenn ku kenn ku ne ci yéen kenn ku ne ci yéen bu aajee saaga ndey dinañ leen saaga ndey bu aajee saaga baay dinañ leen te barke seexul xadim da ngeen xam ne ñun ak yéen a ko seq ba ngeen yor càq bi lañ leen xeex ak yéen ñuus leen ba ngeen tëdd surtout ba càq ba réeree ba nangoo caq ba ci yéen takk ko tey leen leen jàq ak ñuus barke alxuraan di leen xamal ne nag patriote yi fi mu toll nii jomaa ya ngi liggéey ak i ministre am nañ leen bàyyi ñu liggéey ñun ñi nga xam ne ñooy wàcc terrain bi noqe ñuy noqe noqe daa war a si noqe daa war dafa jot nag parce que fan yëpp gis nga ñu toog ci plateau yi di saaga nit ñi te saga nit ñi ay kilifa loolu nak man nañ ko saafara man nañ ko saafara fi mom kuy jaay ne ku ne khalifa Sall neena ken ku ne am bu la nexe rew rew na ngeen woon nit ñi nak man mom problème ma mom wuyu man mom wuyu ci rew ne waaw gatsa gatsa mom kenn duma ci njëkk Adama Fall nak yow da ngay rew lu rewo yow ban la joxe convocation plateau ya nga njëkk gi ko ban ñaanal la yow Adama Fall nga tok fi tay di dul sa dul yi yow kula xamne xamne dul la la xane ci nga taxaw wekki fotay yi Macky Sall sandi di joy pa bu tol na yow di joy ken nokku la yow adama fa yow amo jom nga wëlbati ko ñu wat la nga demat ñew di tagat Macky Sall tay nga taxawat du wax sa waxi rew ji waye di nga xamne ne comme que yow mim bijaaw ya rew asma ñun ñi bijaawul aadama faal barke alxuraan di nga déggal sa maam dund ci xef bi waaw mam maxtaar gay jam la yow waji job ki job kii jóob nii kii nga taf sa kañ la bokk jamra <laughs> Sénégal ñi jub ñëpp rafetlu discours Ousmane Sonko bi africain yi ñëpp jug activiste yëpp rafetlu discours Ousmane Sonko bi africain yi waaw kon nag ñi ko ñaawlu ci àddina bi Sénégal lañ dëkk te ñoo ñoo mas di ñaawlu waxe Ousmane Sonko ñoo ñoo mas di ñaawlu waxe Ousmane Sonko kon nag lii ngeen def déranger ñun bañ ñu ngeen opposé wu ndax opposant amul Sénégal waaw yéen bokku benn parti kon lu ngeen opposé wu seen baay yaa ngi ci rondal di leen jox xaalis di leen yónni ngeen génn di wax ñëw leen ñun ñu ngi fi ñun dañuy raag ak yéen addiyee sëñ Tuubaa yéen da ngeen xam ne réewu leen tey billaahi dootuma may benn nit mu jàll jamaay benn baat barke alxuraan